loola am nga kan gàkka daal yaa loola dimbali nga nu yaram nga nu def nga mm-hmm. ci sun baax gàkka daal yaa waaye nuy ñaan ci kàttanu suñu borom la. amiin amiin. nga yàgg fi lool. amiin. nu yàgg fi ndax ñun suñu yàgg yow sa yàgg am na njëriñ. dafa yàgg de moom. yàggee rek muy suñu ndax damaa wax ni nit ku nekk ba nga jógee di ñëw ci yow xam nga nanga nga meloon. Mm-hmm. waaye ba nga tolloo sa jamono jii nga tolloo xam nga ni nga mel. dëgg la. man de ñëw ma kenn ki ma ñee day mooy ki nga ma jiitu ci yow. Mm-hmm. li may jëf yow ñii naa ko mhm. waaye fi mu ne nii ci jamono yi ma toll ñëw ma kenn dëgg la ndax déglu naa benn kilifa bii mu wax wax joo nga xam ni mhm. damaa kiit waaye nag xam naa ni xëy na noonu la ko yàlla bindee mhm. kenn ku nekk na la yàlla bindee waaye kon ni la yàlla bindee kenn bëgg nag du jafe du jafe la yal na yàlla fanaan amiin sama li mu baaxul jigéen wa dañuy wax naan maam Moussa nee waaye dama daan tëdd ci ginnaawam di waxtaan mu dima wax lu bari di ma digal lu bari di ma tere lu bari te lu mu wax nit rek lu koy jariñ la waaye la kon kan lu baax rek ngay am maa la ko wax yàlla may kon amiin amiin yàlla na yàlla wéral la amiin wéral sa taalibe yi ba li ñuy yéene ci yow yàlla yëngale ko mat sëñ Tuubaa xaajal sàmm sa njabootu bopp bi itam ba li nga yem lépp ak nga mhm. soxna si dëgg la dëgg la nangu nañu waaye fi nga génn baax na ndax jataay bi Cheikh Ibrahima génn nga ko te daawal a génn dama am ak taab ci digg naaw mu ni suba la siyaar bi kaay yi wàcc nit ñi naan sëñ bi dikk na di ma nuyu may gañe te ñoom yóbbu ni ne maa ngi fu su ma demee ba doon bi jeex ma jóg bugg ci biir naanaat ay doom ñëw toog bi génn fekk man siyaar bi mat ba ma dalu rek la kàddu gi nga yëkkati maam góor day bu ñoom ñooñu sëñ bi bu Mbàkke ak sëñ Abdou ñoo bokk sëñ fan waaye keroog moom yóbbalee délégation ci ci sëñ bi moom moom sëñ Assane ñetti kaamil la jël bi tisbaar jotee mu ne Baye Talla yaay jiite la mu yëg la diwum diw mu ne la mu diwoo la koy diw man nangu naa ku ne lekk sa avance barki sëñ Tuubaa waaye xaaju guddi leen koy jël waaye bu jant fenkee ñu delloo la ko alaaji Baara Mbàkke fii la daan jël ay taraanga di la ko yónnee sani Cheikh Sidi Muxtaar wax ci làmmiñam ñu seen bàyyi di dimbali na ma ba ndimbal jafe ñu tegg ko cheikh makhtar ni ko xana da nga bok ci dine man modou kan fekke na mu def ki man bëri fa dakaru dafa am lo xamni ni mbolo lo tuddu sama ko bak neena ma bok bu reuy te borom and ko metti bop bu tutte set da ko gën tan bi yalla ñu gëna yam ñun ni nga no defal ñukoy dund ba mëna tuñu nelaw guddi ba mu jeex loolu la ñuy lijeenti waaye bi jël ci moom ku ne man na bi ku ne man na waaye dem ba deux heures trois heures nga ne nga ñu nga jóg jàpp ba sell julli ñaar raakaat yor kurus di tudd yàlla ak a jégul ku ko def ci yow mënoo koo fay te loolu lan lay doyee doyewul la leen du loolu kon nga dimbalul ci ban yàlla yàlla doyee ba ca des maam mbay moo ko wax wamat gi nga wamat jaam japp ci seen noos bañ leen señ Tuubaa yi di loola mom bu mu doon dagg suñu cër par ben ba mu jeex mënuñu la ko fay mbolo ma ngi ni suba gaaw la sori wu bo tuggé cette place man nako daw 2h de temps mbaa trois mo wàcce la nak nga lijjanti yow ba ag ci sëñ Muntaxa boo dul dellusiwaat dinaan gis ma señ bi dal ko seen bo amé lu baax na da nga na daal seen ci waaye gis sëñ bi te bokk ak moom jataay mu dina jiite moom déedéet kere bi nga xamee ne addiya ji dugg na loxoom moom daaw ajjuma mu xëy woo Cheikh Bass sëñ Bass ni ko ah, maa ngi jéggulu maa ngi toog géej gi bi ni ko bu jéggulu de am maa jéggulu mu ko déedéet sëñ bi maa ngi jéggulu géej waaye dara warul ko lu dul feebar bi ni ni ma ngi ci réew mi sëñ bi ni ko addi ji da laay waajal pour indi ko mu ne ko bu ma nee doon talaata sëñ bi ni man naa doon talaata lii mooy wax Cheikh Bass moomee sëñ Muntaxaay bàyyam sëñ Muntaxaay sëñ Basiru sëñ Basiru borom Tuubaa naar ba nag ba jëf jëfitee gone ga xalé bi yanu tank bi jox nar bi ñew ni lu xew ya xay ñu ni ko ki day jiddee ko de ay ah, lu tuti li dina tax mu mu mu jooy-jooyam bari bi bi dafa rew waye du ki han ah? ni bi man man na ko def sama suñu bi bi du dara dañ ko teel mu ñu mu ko jooyam bu baax ñu jar na jëf <laughs> waye ku la xamul barke señ bamb mo lay engagé mambay sa wax bi daris dama dugg damaa ne Touba génnu ma mu dimbali ma ndimbal lu rëy àjjuma moom suñu asam foofa laa yoroon mbaar di wecc kuy téere su masaana ñëw Touba fa lay wàcc keroog mu ma fa simpee ak tey ñama ba bokkaloon nekk ñépp kenn ku ci ne bëgg naa mel nii ma mel barki Sëñ Touba bi léegi kere bi bi oto bi gaare fekk mu may dugg ci mbaar yi muccaam taxaw mu woolu ma maa ngi dégg ma waa du sol ay daal fekk man booba noxu noxu ji sama xol bi def mbégte li ma am mun munu munu ma la ko wax yow si nga mu ma jiitu xalal oto bi ba ne ko gaareel fii mu gaareel ñu jiit daan nga xam ni sëriñ bi ànd ak yow rek am solo yéeri mi yéeri musta liggéey ci lu sedd fondóor lay def waaye kere bi mu jullee ba génn nga ne ma teg loxo ne ma bàyyi seex gis nga suñu julli jumaa bii bisu taxawaay yomal xiyam rek la ma fàtte tàngoor wii ma ne ko ah waa yéeri ma ngi ni barki sëñ Tuubaa ah nga xam ne maanaam barki sëñ Bamba nga xam ne bi mu ñëwee ba ba ba sërmal mënuñoo génn mbooloo yu wër sëñ Assane kenn ku ne dama koo bëgg a jox la ko nga xam ne am na ko sant Mbàkke Faal day génn dem waaye ñun mënuñoo génn barki sëñ Tuubaa ñu ne ci rajo rajo bi nit ñi ñëw di sut sëñ bi ñaanoon dan laa gis ci sëñ bi ñaanal loolu ku mu doy dër du la doy ndax nag billaahi li neex mooy li nu dal danoo far si sëñ Assane muy daan ñun ñaar la ñuy war ndax sëñ benn moom saa daanee ñu war ñaar te fii mu toll nii kat jëng ci feewut bi ñu lay waxtaane acca naa kaalawu ba koo def kii daal sëñ bi waxam jee bari duñ ci yëg dara ah, xam nga kii ñëw léegi takk bagaasam bi li mu wax loo ci man ni ci bitim bi di dund sëñ Assane Kane ci li muy naan yàlla ne yonent bi ne bay takk ay bagage di yónnee daari alxuraan yi sëñ bi loolu yombul de yàlla nga fi gën a yàq ci gën a wér lool ñun suñu xel dal na suñu yaakaar dolliku na lenn lu mu ci mën a doon dañu koo am ba mët sëkk bërki démb ci màggal bi li murit yi wax dëgg la ñun mësuloo màggal màggal bu mel nii ca yoor yoor ba nga nu wax la nga nu wax loola doonu loo bëggoon a génne baatin la tudd baatin la tudd lii may wax ak boo ko waxul kenn di nga am lii te bi sàngam nga koy am te ñii lay demee loolu lii fi ko nekk man bi may seetaan léegi film bi lima ci gëna a neex moy ñi yor jukki doon jàng alxuraan nit ci ñi cëpp kan lan xam kenn ku ci mënul alxuraan amul ci lepp ya ko def ci ñoom kon sëriñ bi ñun na nga xam ni lu réew mi réy réy ñun fa nu jëm bu ñu fa agge nga xam ni ñoo mu riir bàtt ci té li ci kanam rawul ay bëtt no ngi sant góor jigen mag ndaw sama bis bii moom moom moom faw ko lépp mm-hmm. barki sëñ Bàmb loo ma ci waxoon de gis naa di leegi ren jii moom bis bi moom daa yii xasida fa doon jàng waxtaane mbaaxu borom Tuubaa ak Cheikh Rafaal ba ñëpp seen xol yi tooy Cheikh Makhtar mii nag ak jëwriñ Baye leen di ñaanal gudd fan joxoñ nanu nag wax nga nu ko daaw ak daaw jiit kon boo nu ko waxee ren dinu ko gëm nu màggal gi mel gàmmu gee koy dàq yaa nu ko waxoon te màggal gu rek neex na kon sunu gàmmu dina neex yàlla nañ ko fekk si ñasa dara jiy borom Tuubaa bi dee damay wax jaami yàlla yi ni leen nan santaat sëriñ bi junniy doomu aadama ngay dimbali par bis kon mennum Cheikh Thioune mun laa mën naa jéem nag waaye day tële yàlla nga fi gën a yàgg ci gën a wér ku la xaar yàlla na xaar barke maam Cheikh Fall damaa wax nii barki démb ñetti ngërëm yi nga dajale ñu bokk yow nga téyeku te billaahi doo téye lu yàqu ñun dinañ ko jëriñoo fii ak fa mu jëm noo ngi ñaan yàlla sa borom dolli la te dooleel la sunu xol a sedd rek ba mënuloo bañ a wax waaye wóoru Sëñ Tuubaa Mbàkke ni tey mënoon na maa bañ a jël kàddu ndax Baye Aliou sama doom mës na soreeg yaayam nga jël ko yóbbu ko ca daara ji yaay ji def na pexe yu ne pexe yu ne pexe yu ne sëy bu def na pexe yu ne waaye bàyyi moom da ko wax ni ko fooy ngeen jóge néexul ñu ñu ne moom mu solal ko ay mbaxanaak lu ne ànd ak moom photo waaye bàyyi da ko da koo def ne rek bay boo nga def rek ndax man fi mu sëñ bii moo ma dàqal fuuf fa ngeen loolu moom ay pexem la yu mu doon def waaw moo moo lu ne dugg na waaye dama ko ni préparation sëñ Assane Kane da bukkul suñu bopp buñ ci dugg nañ ko bàyyee moom moom bu noppee ci moom rek dina raw maamam Aliou ñun rawe ay nijaayam ndax jàng kon yal na yàlla dañuy teewale suñu taala ni nijaay si dina am sant nañ la gërëm nañ la